ngeen fukki junni yu teg ñaari junni ak ñetti téeméer ak juróom benn fukki alaaji ak ajaratu ñi nga xam ne ñoo ñuy jàppale ñoom El Hadj ci aj ñooy yóbbu fukki junni yu muy onze mille li ci des délégation bi moo koy yóbbu loolu yi tamit bëgg-bëggu kilifa gi la le président de la république aj dafa boole ay mbir yuy koro korosente mais am na loo xamante ni koom-koom la koom-koom googule la bëgg ñi nga xam ne ñooy doomu Sénégal te mën cee yëngatu am ci dara mu ne nañ leen jox li ëpp ñoom ñu yóbbu ko liggéey ci yóbbu suñuy doomu ndey ak suñuy doomu baay liggéey ci am ci dara mais ñu fexe ba bu ñu teg alaaji bi coono boo xam ne mën na ñàkk ñu fexe ba li nga xam ne moom mooy euh, wayu Sénégal l'image du Sénégal maanaam mu nekk way wu rafet loolu yi tamit ñoom ñoo ngi ciy jàppale bu baax a baax ñu ngi ñëw ci Thiès voyage sii dañ leen di fekk seeni dëkk benn moom mooy dañu war a jegeenteeg ñoom fekk leen fa ñu nekk jege leen alaaji yi ak ajaratu yi dem ci dëkk bu nekk aussi ñu gisanteek ñoom jegeenteeg ñoom waxanteeg ñoom li nga xam ne moom la ñu yaakaar ne bu ñu ko waxanteek ñoom seen aj dana gën a baax ñoom voyage si ñooy organiser ñun ñu ñëw fekk si leen loolu aussi dafay wane euh, déggoo boo xam ne am na ci biir communauté du HG voyagistes si mat nañu ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom waaye dañu dajaloo def ay groupement ren am na nañu fanweeri groupement ak benn yoo xamante ni voyage au lieu mu nekk 286 yoo xam ne ku nekk yaay demal sa bopp dañu dajaloo nekk ay groupement pour doole mais pour mu gën a rafet aussi parce que ànd moo gën a rafet donc loolu moom moo indi ñoom ñooy organiser tey El Hadj Idrissa Seck euh, El Hadj Idrissa Gueye moom mooy waaye moom du ko bañ <laughs> mooy turandoom <laughs> El Hadj Idrissa moom mooy organiser ci turu yeneen voyage si ak turu délégation euh, ñu ñëw fekk si leen waxtaan ak ñoom ci lan la aj wund du tukki kese aj dafa am tukki waaye dafa am liggéey liggéey bi nag dafa mel ni yar sa bopp la tukki bi moom mën na neex ñu dugal la avion yu neex ay A330 nga dem ci jàmm wàcc ci jàmm ñoom ñu ñëw dugal la kaar yóbbu la sa hôtel jox la buffet yóbbu la nga seeti ku tedd ki ku tedd ki ku tedd ki sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabi defi sa kullu ziar dugalaat la woto yu baax yóbbu la màkk dugal la ci sa hôtel loolu lépp ab tukki la ñoom dinañu fexe ak nun dinañu fexe ba loolu mu bañ a am jafe-jafe boo xam ne mënta ñàkk boo ñëwee ñu boole la ak sa ki lay euh, guidé ñu defal la sa tawaafu yàlla maa ngi nii mooy tawaaful xudum waaye bu loolu paasee nag yàlla mu ne nag léegi nag génnal kër gi wàccal lal yi bàyyi fi ceeb yi nga dem mun naa mun naa nag benn dëkk la maanaam benn dëkkuwaay la boo xam ne ma nga ca àll ba garab amu fa kër amu fa euh, mat laa amu fa ñun sax ñoo xeex ni ñii dañu wutal seeni alaaji laa daaw waaye mat laa sax du woon am loolu lu mu doon tekki moom moo doon sunu borom subhanahu wataala taala dafa bëgg ñu yaraat sunu bopp ni ko docteur Khadim waxee léegi ñu yaraat sunu bopp bàyyi yére yi nga xamante ni ñoo ko fàggul suñu bopp des ak yëre yi nga xamante ni moom la ñu yàlla indaaleel muy ñu dellu ca suñu cosaanu maam aadama bi muy sog a wàcc ci kaw suuf xeeñul parfum diwuwul euh, pour bañ takkul caq takkul ceen takkul montre amul titre buñ koy woowee aadama rek lañ ko woowee te aadama sax du woon tur aadama melokaan la ni mu meloon rek moo tax ñu ko doon oowee aadama suñu boroom bëgguñu delluwaat ca cosaan loolee fàttaliku bi nga xamante ni àdduna du àdduna bii mu delluwaat wan ñu fi ñu war a delluwaat te fa la ñu jógee mooy suuf sii si nga xam ne moom la ñu sàkke ñu delluwaat à l'état minéral du ñu dara dul pënd pënd boobu mu delloowaat ñu ci ngir lan ngir ñu mën a euh, raxas suñu ruux yaraat suñu ruux ba bu ñu dellu siwaate ñu xam ne ak yëre bu ñu mënti sol ak titre bu ñu mën a ràngoo weesuwuñu di aadama te dañuy delloowaat ci biir suuf loolu la ñu mun naa di jàngal sunu borom ni kon nanu génn penc yi parce que boo dellu si ci penc yi rek ñu naan la délégué général foofu amul délégué général allah ji moo am soo delloo ci penc bi ñu ne la monsieur le ministre foofu amul monsieur le ministre et cetera donc mu bëgg génn ci penc yi mais ñu dagg kon buum yi nga xamante ni moom mu ñu lonk ci penc yi ba loola bañ ñoo topp malheureusement bu ñu demee mun naa boo xoolee coowu ak bu leen ko dégloo coow at at yii passé doo dégg ñu ne la avion bi doo dégg ñu ne la lekk gi Madina wala Makka doo dégg ñu ne la no bu ñu ñëwee mun naa rek la ñuy commencé di wax lekk gi neexul lekk gi doyul lekk gi ñëwul à temps ma bëggoon aussi ñuy communiquer dans la vérité lekk gi mën te doy waaw ah, mun naa nañ ko wax alaaji ji ñu xam ni dañu dem pour retraite spirituelle kuy dem pour retraite spirituelle da ngay lekk liy jariñ sa doole mais doo ja du da ngay lekk li nga xam ne moom la sa bakkan bëgg li lay indil nutriment pour nga am doole joo jaamoo yàlla loolu ngay lekk mais lii nga xam ne moom moo neex sa bakkan kooku bàyyi nga ko sa kër soo dellu seen lekk mm. lekk heure bi nga bëgg a lekk aussi kooku nekk ku nekk ci tarbiya euh, euh, amun naa nous sommes dans un régiment en fait loolu mooy riba régiment la ñun nag duñu ñu ci loolu bu ko defee alaaji bii tamit du dafa nekk de mauvaise foi dafa xamul rek. Mm-hmm. dafa defee ne bon la mu bàyyi ma dina bàyyi ko Màkka waroon na ko fekk Madina waroon na ko fekk mun na te waxuñ ko ko. Mm-hmm. moo tax ñu bëggoon ñu def communication bu leer que mun naa lii moom moo ko tax a jóg bu fa kenn xaar lekk gu doy lekk gu neex lekk guy ñëw waxtu wi nga ko bëggee loolu nag mooy tax ñu ne la watazawwadu donc waajalal sa bopp comme lekk gi du neex. Mm-hmm. lekk gi du doy. lekk gi du ñëw waxtu wi nga ko bëggee na nga waajal sa bopp nooy waajale sa bopp am conscience su yàlla ni yàlla mi nga fekk si moom moo la laaj nga dëkkee nii sànq Idrissa mi ngi koy wax ma bi balighihi illa bi shaqil anfusi loolu mooy moo waral ñu indi communication yëpp pour waajal suñu allaaj yi pour ñu préparer wu bu ñu demee ñu bañ di ñaxtu lu ko jarul mu yàq seen aj di laaj lu fa dul nekk ñu ñaxtu ko te ñaxtu ko ñaxtu ko du tax mu ñëw mu yàq seen aj ñu ànd nekk ay doomu Sénégal bàyyi fi benn ndey bu tudd Sénégal war a rafetal wayam nekkin wa ñuy nekkee foofu moo koy waral. Euh, voilà les gens sont plus ou moins satisfaits une fois na mun Mouna Arafat les problèmes euh, euh, commencent à à à alors après réflexion nous nous sommes dit que peut-être c'est nous qui avons commis euh, l'erreur de ne pas communiquer suffisamment sur Mouna. Parce que Mouna n'est pas un hôtel. Mouna n'est pas un espace touristique. Mouna, c'est le désert. Euh, pourquoi euh, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous dévêtir de nos attributs vestimentaires, mais également de nos attributs sociaux ministre délégués, professeurs. Dieu nous demande de nous dévêtir de tout cela pour revenir à l'état primordial, à l'état adamique. Lorsque Adam est descendu sur terre, sans aucun titre, sans aucun attribut vestimentaire, sans parfum, sans rien, sans voilà, bijouterie ni rien. Pourquoi Dieu nous demande alors de revenir à, cette, à cet état primordial, à cet état adamique, non pas dans les villes, mais dans le désert, entouré de pierres. Donc, Dieu voudrait que nous nous souvenions de cet état primordial, mais également que nous nous souvenions de notre état, de notre statut, de notre état minéral. nous avons été créés à partir de la terre. Nous revenons au désert. Nous nous couchons sur terre, au milieu des pierres, et nous retournons dans la terre lorsque nous mourons. C'est cet état primordial et cet état minéral que nous devrions avoir en, conseil, en conscience plutôt que de nous souvenir de nos attributs et de nos privilèges, des, des, des, des commodités de l'hôtellerie, pour dire que voilà, Mouna, on n'a pas mangé à temps, on n'a pas mangé gras, on n'a pas mangé machin, machin. Ça veut que la communication à Mouna n'a pas été faite telle qu'elle devrait être faite. C'est pour ça que cette année, nous nous sommes dit, nous allons mettre l'accent sur cette communication, sur le sens de notre euh, résidence à Mouna et à Arafat pour que la retraite qui nous est euh, euh, demandée par Allah subhanahu wa ta'ala soit une véritable retraite. On nous demande de sortir de nos familles, de couper les liens avec la société, de sortir de la ville, de tourner le dos à toutes les commodités de l'urbanité pour revenir au milieu du désert, entre les pierres, Euh, euh, euh, revêtu seulement d'un petit voilà d'une petite étoffe etc tout cela nous nous le faisons mais dans le même temps nous restons attachés à nos sociétés par nos smartphones les réseaux sociaux ne sont pas coupés or on nous a demandé de sortir de nos sociétés et nous restons nos par les réseaux sociaux Mais nous restons attachés à nos sociétés par les réseaux sociaux, non pas par cette positivité. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ Tout ce que vous faites de positif, Dieu le sait. Mais il sait l'inverse. Il sait aussi ce qui n'est pas positif. Pourquoi il met en relief la positivité C'est parce que nous, nous devons vivre cette positivité dans cette retraite. Mais nous, nous emportons nos smartphones qui nous relient à nos sociétés, à nos réseaux sociaux. Au lieu de refléter la positivité, nous reflétons la négativité. Mm. Nous allons regarder les, les, les, voilà, les petites choses, euh, ce qui devrait être dans les caniveaux, euh, etc., pour diffuser et partager. Je pense que ce n'est pas de mauvaise foi que les gens le font, c'est par ignorance. Donc c'est à nous de porter l'information et le message par cette communication. C'est le sens de euh, la communication de ce matin. Vous avez 12 800 pèlerins.